waaw si biir Covid bi euh, investissement yi nga xam ne am nañ solo jëmul trop si cardiologie. si yeneen i anam la dem maanaam surtout réanimation. Mm-hmm. Euh, foofu la xëy na foofu moo soxewoon bu baax a baax. Euh, parce que maladie souvent foofu lañ doon demee jublu. Mm. loolu lañ doon soxla foofu état bi amoon na lu mu ci jotoon a def. Mm. Euh, ba xam ne xëy na amoon na fu mu toll woon xëy na liggéey bi des na nag waaw parce que gis nañ ne xëy na après bi mu weesoo tamit am na yeneen yu sooxe yoo xam ne feeñ na. Mm-hmm. Euh, ñu war a jubbanti. léegi nag jubbanti bi des na lu bëri parce que sa question mi ngi ne ndax Covid bi ah, su ma ko jàpp su ma résumé sa question ndax Covid bi soppi na un sunu perspective yi euh, des na am na lu ñu war a defaat encore pour que yëf yi gën a ñoŋol parce que xëy na suñu amaatee crise bu mel noonu dina am yu yu sooxee ba tey di feeñ donc laaj nañu ñu gën a liggéeyaat gën a investir dëgg la état bi def na ay investissement yu am solo mm-hmm. euh, soo xoolee ci biir région yi hôpitaux yu bees yi ñuy teg teg nañ fa ay équipement aussi yu am solo yoo xam ne ku nekk boo ko gisee koy liggéey ci mbiru wér-gu-yaram di nga da ngay bëgg a sawar dem liggéey ca waaye euh, il faut mbiru santé moom il faut comme lépp il faut lépp àndandoo mhm. maanaam que ngay teg ay jumtukaay waaye nga teg tamit nit ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko war a mën a mhm. jëfandikoo parce que loolu njaar yooyu su amul yëf yi day am jafe-jafe pour mu sotti. donc loolu liggéey bi des na war nañ ci defaat donc pour wax ne daal suñu jëlee suñu nee ndax euh, soppeeku bu am solo am na depuis Covid am na lu am. waaye am na lu des am na loo xam ne war nañ ko gën a defaat pour que yëf yi gën